c'est Makhtar Gueye président de l'amicale des élèves ingénieurs de l'ENSA si cérémonie officielle journée d'intégration promotion bu bees bu ENSA comme ni ko xamee ENSA mooy day marqué 42 ans yoo xam te ne nii ENSA mu ngi existé ba léegi 42 ans yoo xam te nii ENSA mu ngi nekk au service euh, du développement rural 42 ans yoo xam te ENSA mu ngi cultiver l'excellence et que pour wane ko rek da gis parrain yi nga moom la ñu choisir. ñaamte ne nii poste yu ñuy occupé pour dimbali suñu réew mi si domaine mbay mi day day wane ni importance su ENSA contribution bu muy am si développement agricole bu Sénégal. d'accord sas bi yéen xaw a diis yéen waaye déglu waaw déglu nañ ko bu baax a baax a baax comme ni ma ko waxee rek du du promotion bu bees bi rek ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bénéficié wu si conseils yi waaye tamit ñun tamit bénéficié wu nañ si lool. et jël nañ conscience si nga xamante ne mooy défi yi nga moom moo ñuy xaar comme ni mu ko waxee rek mooy suqali mbay mi si problème yi moom la ñuy rencontré défi yi nga moom la ñu bëgg dem jëli si te en de souveraineté alimentaire souveraineté en terme de riz mais également yeneen problème yi nga xamante ne nii également bëri na ñu xamante ne ñun ñoo war a jug dem résoudre ko parce que nous sommes la nouvelle génération et génération bu bees bi défi yi ñuy xaar bëri na lool lool lool. waaw li ñuy def rek mooy jërëjëf ñu tout d'abord ñuy remercier. Euh, euh, amicale bi euh, élèves ingénieurs yi ak waa direction bi ñi nga xam ne xalaat nañu boole ñu ci parrain xale yi nga xam ne nga xam ne ñu dugg tey jii ci école bi liñ ciy wax rek mooy école bi dafa nekk fa am réputation parce que tey jii ñi fi génn ñëpp képp ku génn ci dee jaar produit bu génnee ENSA looy njëkk a wax mooy am na compétence am na xarañte bi am na lu bëri la bëri loo xam ne tey jii outils yi mu war a am pour développer pour développer outil de développement yor na ko. am na woy bu rafet. am na woy bu rafet te loolu nag du du si secteur agricole rek ne maanaam lépp loo xam ne day toucher agriculture. Ostar dañ ci dañ ciy yëngu tey jii boo demee assurance da ko ci fekk nga fekk fii affaire mbirum banque yi da nga ci leen fi fekk nga dem ci organisme international da nga fekk produit de leen sax donc loolu nag tax na tey jii ñi ñëw wax ak ñoom. ne leen nag yàlla yaa ngeen dugg ci école boo xam ne am na woy bu rafet loolu nag jar na ngeen bàyyi ci xel te ngeen def seen kettalaay kattan ka du boobu bu mu daanoo seen ba mu bu drapeau boobu bu mu daanoo seen loxo ngeen góorgóorlu ba nga xam ne tey jii fii ak bu ñëwaatee fekk ngeen ji ngeen ngeen jot tous les diplômes ñu mën leen feeteel seen diplôme ngeen mën a jénn bokk ci ñi nga xam ne tey jii dañu war a ci développement euh, agriculture euh, sénégalais ak développement ci euh, développement au sens waaw loolu tey jii ku xool euh, agriculture comparé tey jii depuis 2012 jéego ñu ak ak léegi jéego ñuy def maanaam macha allah parce que tey jii depuis 2012 production bi ko ci spéculation boo mënta jël suñ ko yokk multiplier multiplier par ñaar multiplier nañ ko par trois et loolu nag engagement yi nga xam ne ne autorités yi ak volonté politique bi président de la république Macky Sall am. insu euh, son ci différents programmes yi nga xam ne bu ñu PSE euh, donc euh, le PRACAS bi nga xam ne dañ ko doon déroulé tey jii ñuy def su su stratégie nationale de souveraineté alimentaire ak jumtukaay yi nga xam ne loolu la ci la ci boolaale mooy tey jii ku xool programme agricole dañoo xëy xëy na tey jii mu egg cent milliards loo xam ne 2012 ça tourne autour de vingt cinq milliards donc multiplier na ko par quatre pour accompagner producteurs yi. suñu xoolee reconstruction du capital semencier xool matériel bi nga xam ne tey jii def na ci quatre vingt cinq milliards pour que ñu mën a indi matériel bi donc commencé na ñëw donc am na yeneen ji am na yeneen yoo xam ne ñu ngi am na benn partie bi ñëw am na yeneen partie yu del yu war a yu war a ñëwaat jëm ci ISRA tey jii avec constru euh, création variétale accompagnement ñu def financement ñu war a def nii ak fin carte bu ñu xoolee carte scolaire bi euh, euh, formation yi nga xam ne tey jii boole nañ ko ci bàyyi ci xel bu baax agriculture loolu yëpp nag moo ñu mën a may permettre tey jii ñu am loolu waaye nag ay jéego des na parce que tey jii ku xool adduna bi nu mu tëddee xool tey jii jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko tey jii ci adduna bi loolu nag war nañoo pousse ñun tey jii ñu xam ne li ñu war a def rek mooy souveraineté alimentaire doolu du du du lu ñu bëgg-bëgg du wala ay lu war a xam ne ne moo nañu war a xar suñu tànk dowee parce que su loolu adduna bi nu mu tëddee nii mun nañ nekk ci face ay choc di xëy xëy xëy am ay jafe-jafe donc loolu nag laaj na ak formation yi nga xam ne tey jii école bii nga xam ne ne am na ci pàcc bu rëy rëy rëy rëy parce que ñi war a xalaat loolu ñi war a joxe orientation yi ñu ci bëri ci école bii ni ñuy génne donc loolu nag bu ko tegee tey fekkee tey jii ñu war a former ñu ay xale ñu war a travailler ci loolu loolu dañ ci gën a mën a am yaakaar que ne incha allah rabbi ci li nga xam ne ne mooy nu ñu dëgmal jublu ci te di ci travail mu jëm ci souveraineté alimentaire avec accompagnement autorité yi avec acteur yi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk. incha allah rabi gëm nañ leen suuf Sénégal dana ko dana ko atteindre. la kontinuité kon euh, président Macky Sall il faut un de moo ko war wutu. mais loolu loolu loolu ñëpp ñëpp Sénégal yëpp d' nañ ci. tey jii parce que tey bilan bu ñu xoolee bilan. bu ñu xoolee tey jii bilan amul gën a ba Sénégalais yëpp d' accord nañ ne Macky Sall lu mu fi def benn président mosu ko fi def. te tey jii ñi ñu soxla sa réew mi mu soxla mooy ku taxaw ci soxla askan wi président Macky Sall mu ngi ci doon taxaw. te jëm nañ ne tey balaa ngay indi keneen muy jàngaat di xool fu mu war a teg tànkam ak yooyu yëpp bañ pour mën a après euh, pour mën a xool fu muy jàngee ba loolu dana dana yéex. ñu amee tey jii. tey jii président moo ko am ñu fa at ko loolu moom mooy mooy mooy luy gën continuité te loolu mooy mën a permettre tey jii population bi ci rapidement ku ñu fal rek nga mën a bu ñu ko falee rek candidat Benno Bokk Yaakaar bi ñu mën a jël. Euh, en charge loolu ñu koy bàyyi président parce que ñun ñëpp dañoo ànd ne président moom ku mu tànn rek ñun duñu te président ku mu tànn incha allah rabi moom nañu nekk ci gën a am te incha allah ne mooy doon futur président de la République du Sénégal. Je suis la marraine donc euh, de cette 42e promotion des élèves ingénieurs de l'ENSA. Et en même temps, je suis euh, directrice de l'évaluation des programmes et projets au niveau du ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et waaw euh, ñii xanaa li ma leen di dénk rek mooy euh, fi nga xam ne foofu lañ fekk école bi euh, li nga xam ne moo leen xëcc ci école bi ba ñu def concours bi ñëw ci école bi ñu mën ko continuer di ko wéyal maanaam nañu topp seen jàng bokk ci nga xam ne boo bu ñuy génn ci école bi buñ dee lim promotion yi nga xam ne ñoo gën a baax résultat maanaam ñoo gën a xarañ ci ñi génn ci école bi ñoom ñu bokk ci comme ni nga koy waxee suñuy rakk lañu ñenn ñi mat nañ ay doom Euh, sentiment bi nga xam ne moom la ñu am tey mooy euh, un sentiment de fierté certes mais un sentiment aussi bu responsabilité parce que dañ yaakaar ne ay xale bu ñu leen jëlee ne leen yow kii mooy seen royukaay yow am nga sas parce que da nga war foo toll aussi di leen nemmeeku di xool di leen encouragé te tànk yooyu incha allah fas na ngeen cee gunge ba nga xam ne ñoom dinañ am seen diplôme ci nga xam ne noonu la gën a muccee ayib. tey dañ ma fi dama fi teew parce que école bi. dañoo defoon lu nga xam ne mooy ab jongante jongante jëmale ko ci lycée yi jëmale ko ci élèves yi nga xam ne ñoo ne ci lycée ci collège yi ngir tànn ñi nga xamante ni euh, maanaam mérité nañ ñu jàppale leen jox leen ay teraanga donc loolu ñu tànnoon ma nag comme euh, njiit gi nga xamante ni mooy seen royukaay mu war leen a jox seen euh, loolu nga xam ne moom lañ fi jëlee. man nag euh, maa ngi liggéey ci wàllum assurance agricole bokk ci benn benn ci bànqaas yi nga xam ne nguur gi daf ko fee teg ngir mu jàppale baykat sàmmkat ak nappkat ci jafe-jafe yi nga xam ne day gàllankoor seen liggéey euh, wàllum assurance boobu ñu koy wax kaaraange mbay ak kaaraange càmm loolu nag euh, bi ko fi nguur gi tegeeg léegi nguur gi mu ngi leen di jàppale bu baax a baax Euh, nga xam ne li nga xam ne mooy njëg gi nga xam ne moom ngay fay ngir am assurance boobu ngir am kaaraange mbay moom wala kaaraange càmm gi nguur gi daf leen ci fayal xaaj bi loolu nag waaw Sénégal euh, euh, dafa bu jiitu ci Afrique soowu jant boo xamante ni moo njëkk a am mel waaye yamul ci loolu réew yu bari moo xam muy Niger moo xam muy kongo moo xam muy ne Mali Gambie ñoom dañuy ñëw fii ngir jàng si si si ñun ngir ñu wan leen wàllum assurance ci wàllum mbay moom ndax assurance ci oto rek ngeen ko xam ak ci wàllum feebar waaye nañu xam ne léegi assurance ci wàllum mbay am na ak ci wàllu càmm te Sénégal am na ci taxawaay bu rafet ci biir réew mi société bi jëmmal ko waaye ñu am ci taxawaay bu am solo ci Afrique euh, ak réew yi ko wër yëpp. société société bi nguur gi mi ngi ko taxawal ci atum 2009 waaye boo xoolee ba ñu taxawalee ba léegi muy fukki at ñett gannaaw bi ñu taxawalee dem nañ ba mën a joote yoote euh, assurance bi mu mën a yegg ci euh, lu ëpp euh, mille baykat yoo xamante ni ak sàmmkat yoo xam ne am nañ ci assurance am nañ accès ci assurance boobu six cent mille baykat yooyu dugal nañ ci seen gafaka ci société bi benn milliard nguur gi subventionné leen benn milliard muy ñaari milliard yu dugg ci gafaka gi ci campagne bi passé di campagne deux mille vingt deux boo ko xaymaa yàqu-yàqu yi ci wàllu mbay meeg ci wàllu càmm ji romb na benn milliard ak genn wàll goo xam nguur gi taxaw na jàppale leen ngir ñu jébbal leen koom googu ngir mën fexe ba lépp loo xam ne defoon nañ ko ci fare ci seen tool yi wala ci seen jur gi ngir ñu mën koo dabuwaat jërëjëf